nañu koy defee ak mu jot ci bés bi ñu jegleel liggéeykat yi ci àddina bi yëpp noonee lañ ko amalee ren itam fii ci Sénégal liggéeykat yi ak patronat bi ñëw jàkkaarlook njiitu réew mi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ginnaaw bi ko syndicat yi jottalee seeni doléance ñu màndargal ko nag ak cahier de doléance yi nga xam ni moom la ñuy jiite syndicat yi jox njiitu réew mi ci bés bi ñu jegleel liggéeykat yi ñu tënk ci jafe-jafe yi nga xam ni këru liggéeykaay yi ñu ngi koy jànkoonteel am itam yaakaar ci naka la nguur gi fas yéene taxawee jafe-jafe yi askan wi di jànkoonteel ginnaaw ba mu leen dégloo ba pare nag njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay daal di leen sant bu baax xam itam responsabilité bi ñu gàlloo mu fas yéene ci addu ci ni mu gën a man ma sàkk woon ci fan yi ci gannaaw yàggul dara toogoon waxtaan ak centrale syndicale yi nga xamante ne ci gannaaw bi ñu jógee ci wote yi pour xool ñan ñoo ci gën a représentative pour ñu waxtaan lool di ndoorteel rek ndax bëgguma woon ñu daje ci première daje mu doon daje goo xam ne dajog ñaxtu lay doon doonte ñaxtu yu jaar yoon la ñaxtu yu ñu nangu la ñaxtu yu ñu rafetlu la donc ci élan bu ñu waxtaanee woon keroog dinañ ko continuer incha allah ak ñeneen ñi nga xamante ne teewuñu fa woon maa ngi ci doon waxtaan ak premier ministre pour ñuy xool naka la ñuy toogaatee gën a yaatal pour li nga xamante ne moom la travailleurs yi di woowee passif social ak li nga xamante ne moo nekk seen projection de revendication te muy yoon ndax ñun yaay syndicaliste lañ xam nañu bu ngeen waxee fan ngeen di waxee ak lan moo tax ngeen di wax xëy na bu ñu waxtaanee. dinañ mën a tënk dara loo xamante ni ñun ñëpp dañ ci jubboo pour gën a dalal ngeen may ñu tuuti diir rek te nattuñu ci lu ñuy doxalee ngeen xool ba xam fu ñuy mujje yéen te am naa njortu gu rafet ne lépp dina baax incha allah. ci jàkkaarloo bi njëkk nag dox diggante njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye syndicaliste yi ak patronat yi ñu ciy xaarandi waxtaan bu déggu lépp rek ngir jàmm ju sax ci këru liggéeykaay yi.